comité de développement sanitaire bu Touba jaarale ci kuréel gi nga xam ne moo leen ëmb ñu mere lool état bu senegal ci bor boo xam ne yoreel na leen ko ci diirub ñeenti at bàyyeekoo ci couverture maladie universelle di ay téeméeri téeméeri millions. tey dañuy jooytu suñu bët dafa xong coy ci affaire santé fii ci Touba district Touba ndax nag bu fekkee na dañ nekk dañoo ñëw fekk nu fii ci Touba ñu ne dañ xale yi war a faju danoo bëgg ngeen lebal leen seeni bor nu fay leen ñu naan ko CMI nu lebal leen ko ànd ak ñoom ca loola boobu ba tey 2017 ba 2018 ba 2019 ba 2020 di bëgg a jeex remboursé wenn benn dërëm joxuñu nu waxuñu nu loolu dana nu jaaxal te dana nu métti état bu Sénégal génne woon na lu toll ci quinze milliards de francs fa ngir fay bor bi nga xam ne moo bàyyeekoo ci couverture maladie universelle ci Sénégal gi yépp comité de développement sanitaire yu Touba yi ñu jox leen ci dix-huit millions te poste de santé bi nekkee ci vingt-huit rek état bi ameel na ko lu ëpp téeméeri millions ak juróom-benn fukk yu teg. waaye li nga mënta dégg daal. amee nu 2017 2018 2019 muy millions yu bëree baree bëri Touba bokk ci Sénégal deuxième capitale du Sénégal ñu génne 15 milliards joxuñu ci Touba lu may 18 millions ne day fay loolu mënuñu koo dégg duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba nañ ñu jox xaalis parce que porte am nañ problème mënatuñoo fay seen personnel te nii bu ñu continuer paj mi day arrêté. santé santé bii nga xam ne moo nekk dëru 28 rek lu mu néew néew ko lu mu gàtt gàtt amee nañ ko 160 millions. pot yi ndaw yi si gën a ndawee yi si gën a ndawee kenn ku ne amee na la vingt millions kon jàpp naa ne loolu soo amee nag bu pare ñu ne époche nañu bor yi loolu mënuñu koo dégg tey mënuñu koo dégg suba te duñ ko nangu suba duñ ko nangu ëllëg duñ ko nangu nañ ñu fay nañ ñu fay suñu xaalis bii loolu la ñuy président directement mu jàppale nu ci ministre de la santé ñu fay ñu suñu xaalis bi ñoom nag nee ñu seen xaalis bi bu ñu ko jotul mën naa dem ba indi gàllankoor ci paj mi fii ci Touba ndax bor du am rak parce que porte am nañ problème mënatu ñoo fay seen personnel te nii bu ñu continuer paj mi day arrêté paj mi day arrêté parce que nit ñu liggéey te kenn du leen fay te duñu am lu ñu fayee covid 19 bi mu fi jaaree planifié na poste yi ñu tegaat ci ñu ne déetewaay ñu ne seemi bi remboursé wuñu te ñu ne remboursé nañ gépp 15 milliards loolu mënuñu ko dégg te mu ñu 10 millions nañ ñu jox suñu xaalis bii nu fay ko ñi ko nga que xaalis bi ñaari xaalis la nan ñu wax suñu xaalis ñu yóbbu lycée médicament ba fa mu nekkoon poste ay médicament ñu mën a faje la nga xam ne recette ba ñu jox ko ñi nga xam ne ñu am cawate liggéey parce que bu lay bu ko teg seen xeex bi nag nee ñu bañuñu ci dara ba keroog état bu Sénégal di leen fay seen bor bi nga xam ne moom la leen yoreel